sëñ Touba ngoram rek wecci na diine fen ñam fekk ca ndar nee na maa ko mab hadamtuma banaahu kullu man jahat min al fira bi qul huwa allahu ahad dama fa fekk ay fen ña wedd yàlla teg ko fa ma mabb ko teg fa ne yàlla képp ay buur qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad hadamtu bil ilahi bunyat al fira wala ulaaxi abadan man kafara 12 août ba 5 septembre xanaa ab diggante la moo ne cinq septembre lañ ko àtte te 18 la fa jóge waat encore keroog bi ñu ko àttee waaye mbokk mi xanaa xamoo ne conseil privé bi alxames la àtte bi 9h30 la procès bi tàmbali 45 minutes di daam da koo naafila te ko kenn ku la mën a wax ne bureau ndar sëñ baa wax na fa lu mooy ñaari baat amul bisu àtte bi bi mu ñëwee fekk ñëw conseil privé yëpp teew dafa sànni der rek kabar julli ñaar rakk. ana ku ma woo ci yéen ñi la wax ana ku ma woo ci yéen loolu sëñ Mouhamadul Mamoun Ñang moo ma ko nettali ba ma demee di ko ko laaj mu ne sëñ Abdou Lahad laa àndal dem kër ma suran suran ca Ndar fekk fa tubaab bu tudd Gaspar nee na Gaspar ne ma moo ñëw de sëñ Abdou Lahad yow sa bàyyi sëñ Touba day xaw ma lu ko yàllaam ji defal waaye jaral na ko ndax keroog ba muy julli bi la góor noonu fa la ma fekk tubaab bee ne ko maa ko fekk keroog waaye ba sa bàyyi jullee ba woo ci yéen nee na ñëpp a daw génn daw daw daw bureau bi génn ba mu jeex sëñ Touba dong des ñëpp daw génn señ mourou Mamoun ñang mom yalla na fi yag mi ngi fi ñëpp daw génn benen bi ci dess biñu ñu rapport bi tuuma ñin ko tek li chef de canton yi wax nangam nangam nanga wax ba yegal xam nga ban baat la ci señ touba tek nan woni ko wax biñ ko tege da ngay jaxase bawal ak kadior ak walo jaxase rewmi andi problème yi nangam wax ba yegal ana ñi ko wax la wax nañ woo ñi ko wax ñu àtte ko la cinq amul avocat bu koy plaideel amul ku koy teggili tuuma mooy ay tuubaa ki tooñ ñu teg ko ci kaw sëñ Touba kere bi ñu ko àttee la 5 septembre tubaab yi dañ koo nëbb kenn xamutoon fi ñu denc sëñ Touba la 5 septembre bi ko tubaab yi àttee ndax am na lu ñu pexee woon ci moom waaye muritam bu dëggal ba Cheikh Ibrahima Fall yi Mouridina mooy def ay gëstu ba xam fi Cheikh Ahmadou Bamba nekk te loolu tey boo demee ci. boo demee ci internet bi boo demee ci internet bi am na site yoo bu ci nekk damaa dem ànd ak comité ba nekk ndar comité ba ñoom Ahmad Fall comité ba laa àndal ñu dem site bu ne ma ne leen fii lan moo fi xewoon ak lu fi xewoon ñu taxaw ma leeral ko ci adduna bi ñu di ko seetal béréb bu ci nekk dem naa ba ne fii lañ ko boole woon ak gaynde gi fii la lii xewoon fii lii la xewoon ma nga ca ndar nekk lu ne fang kon laxat aqamte bi ndar حين تزيل بها داء دلال من أهل الشك والفنل بانكو أتي السنك بوبي سنك بابا وخل بابا مني ومكست فيها ومكست فيها أي في النار بقية السفر والربيع الأول إلى يومين يوم الخميس والجمعة لو لسنك وخ سخنافا لا نستوير سفروا وا وينيار فكي فان يمفو muy la des weeru màggal ga ak weeru gàmmoo ba mu des ñaari fan muy alxames ak ajjuma ca lañ ko jëlee ndar yóbbu ko ndakaaru su ma taxata jihaaran fii safinatiha tanhu ndakaaru bi isnil muminil abad déggee naa ci Cheikh Abdou Samatum Serigne Chouaib bu mu ne gaal gi ñu dugaloon suñ saxaar gi ñu wax wi ñu dugaloon suñ tubaab muy dem ndakaaru dee su fa dugal sax nit dafa taxaw bebaru ba ba muy egg ndakaaru moo ne ba mu accès yi yóbbu yóbbuwun ko ci béréb boo xam ne bu neex la ndax bi mu agsee moo waxal boppam it ba tey ci jasaaw shakur ne ba mu agsee la mu njëkk wax mooy aka neexoon ma am fu ma dogee sama koor ngir dundal sunna te booba daa woor wenn waxambaane moo ñëw ne ko nañ dem am néeg a gën a neex naa noppaloo sëñ bi nee na néeg la boo xam ne koo namm ci moom ak dund doo ko fa yóbbu ci moom ak dund doo ko fa yóbbu ngir booree xat boole tàng ak yuy lore boole xat ak tàng ak yuy lore moo ne teewul dey ba mu ne jëy ab tànkam teg ko ca ay ràbb ki xottu bi teen taxul mu dellu ginnaaw taxul mu rikkile taxul mu riccu taxul mu def lenn xanaa am dëgër gu toll ni ba tànkam balay jame jàll ca kanam mu bés ba ca des nu boole ne ràbb ab buntab tëj moo ne bañ ne ràbb buntu ba tëji dey dafa daal kabar dafa daal di te ab xolam kat mësta jeng mësta yox yoxi mësta dellu ginnaaw sunu borom nattu ba mu ko ca nattu mooy lan ndax moom yox yoxi na wala yëg na li koy gaañ wala ndax dellu na ca ginnaaw waaye nee na as sabru wa shukru wa ridaa sant ak muñ gërëm yàlla rek Cheikh Moussa Ka am na fa yaari guddi yoo xam ne lekkul naanul lu mooy ci leeri boroomam waay waay waay waay kii bu nooyoon te nangu waaye ndar du fa yàgg waaye lu ko war ñu koy tëj ci néeg bu tàng ci kaso bu new nooyoon bàyyee boppam nit ñi na def leen lu leen neex du ko jar lii gone yi wax naan la mu wax ba dem ku ko waxoon dem loolu muy dëgg moo ne gaawam boobee de bañ ko génnee ca béréb ba boobee ci géej gi la ñëpp kenn wettiliwul sëñ Touba kenn àndul ak sëriñ Touba kenn xamul fi sëñ Touba jëm moom ci boppam ko Conakry la dégg turu Gabon waaye waxuñu ko sax fu ñu ko jëme xoole yi tooñ xoole yi tuuma xoole gi ndëngati atte nit amul ku ko plaidel amul avocat di ko yóbbu amul ben condition waye lu mbettel ko rafiqi kitabullah wal mustafa nabi wa ashabuhu fil bahr hina adur ma wéttali ko yàlla rasulullah al quran al karim seigne Tuubaa kep ci bir nonam ci bir mbex mi kun boole gayne fa nar tejle fi néeg bob da ngay joggi xottu bi dala ki ràbb yaak ñoom ci bir bata dong te téewul sa jaroore feeñ mooy lan sànni sa der ci géej kàbbar julli loolu doo ko jàppe xar bu baax xam nga lan koy jàppe mooy wone na yàllaa ko jaral moo ne bu fekkoon ne tubaab yi dañ koy wax muy def baa ñu koy tere muy bàyyi ba mu ju bëggee julli mënoon nañu ko bul jóg foofu waaye moo moo taxaw ci buntu gaal gi yorub deram na ko wur na ko bula gaal gi raw sëñ mu lay bu so nettali na ko sëñ mu lay bind ko wa fi lyammi salla al asra yajri bi jundihi ma al fulki yabdu raakian xayra saajidi te moo ne ba mu ne ci géej gi de ba ne allahu akbar kabbar yabdu raakian xayra saajidi ne di rukkoo rukkoo bu jëkk di sujjóot sujjóot bu jekk mel ni ku ne ci kaw suuf te jaamu yàlla rek la ci jubloon loola xanaa ndamul nit ku ñuul la loolu ndamul lislaam la Sénégal réew mu doy waar la moo xam ne li nga tële rek ngay bañ koo man réew mi boo fuusee bopp nag doone sëñ bi nangam jaloore yi sëñ Tuubaa dañ ko war a nettali bu nettalee jaloore yi sëñ Tuubaa rek mbir mi leer samaan ni yaxi jajin tey jii la tubaab yi gën a xam ne mbirum sëñ Tuubaa tey la gën a yëngu jëkk xaftaan mii tubaab yee ko gën a xam ñépp gis ko mu xaftaanam bu weex bii murid yi yor ci mbedd yi Europe ak Asie ak Amérique ak Australie ak fu ne di wax jërëjëfa sëñ Tuubaa xasida yi di tubaab yi gis seen foto yi seen doom yi di ko laaj borom taxawaay bii borom muuraay gi ku mu ñu ne kii moo daje woon ak seen i maam duma leen loolu rek mooy tekki bu gàtt bi te taxagul tey taxagul tey tubaab yi mën a génne benn murit bu mën a tubaab yi mën a génneegul benn archive bu tax gàccaam seen fen yan fenoon nag ne sëñ Tuubaa des na ci géej gi mooy fen yi fe xewaat léegi rek bañ ne sëñ Tuubaa ñibbisiwul ka ko weddi mooy Cheikh Mourtada fañ ko def ca États-Unis Cheikh Mourtada demal boppam ba yegg ne leen mooy sama wayjur sama kar d'identité ngi ne ginnaaw géej gi laa feeñ jamono xam nga loolu moom jooju wax daa leer kon kii lu mu la waxati loo ciy gëm te man li ma mënta gëm mooy ñaar ñuy xeex gis nga mbëri làmb yi sax bu nu combat nii ba noppi kiñ dóor ba mu bëgg a dee boo ko laajee ndax sa waay laal na la da nga naan touché na ma rek non touché na ma rek fekk dóor nañ ko ba mu bëgg a ñaar ñuy xeex nu lay manee nga naan diw man na ma doo ko wax touché na ma rek ngay wallahi tubaab bi du nett lim seq ak sëñ tubaab du mas a nett seq ak sëñ tubaab